dugal gone yu ndaw yi ba pare soog a mujj ci ñoom parce que mbër yi fa ñu waxtaan surtout ñaar ñii man ñoo ma gën a intéressé. Baba Jaxal numéro 2. waaw <laughs> kaay leen taxaw. Baba Jaxal ana Baba Jaxal kaay. Baba Jaxal Jaxal. may leen ma tuuti. <laughs> toog leen ba kii bàkku ba pare ndeysaan basa basa basa basa doy na eh waaw baax na baax na baax na ak wax la ñoom taxawal ne may la ñu tuuti waay eh ak déglu noppale ne eh. gaay déglu leen tuuti may leen ñu may leen ñu tuuti yow papis général ah wuyu ma fii yaay papis kii mooy caatu ngéwél gi waaw dama bëgg ngeen waxtaan tuuti yow léegi papi général laa njëkk laaj. waaw. lan moo tax nga ñeme caatu ngéwél gi ba ñu boole la moom nga jël ko ak nan nga war a def. caatu ngéwél waaw allo yes. caatu ngéwél moom. caatu ngéwél moom dama ngaa bëggoon bëri lamb jël laa bëggoon bëri ak moom lamb jël gaa naan gaa yi nekk nag bii moom dama koy tër. dama ko tër daan daan ko xam nga daanu naa fi kenn dama koy tër daan ko yóbbu ndam la moom la laa fi insha allah waaw ma positionné raw quoi taxawal taxawal taxawal taxawal taxawal may leen tuuti caatu ngéwél gi caatu ngéwél gi dégg naa nag yow yaay ndaanaanu ngumba waaw léegi nag lan ngay wax asalaamaaleykum nekk artisan yëpp waa waa ginnaaw raa yëpp maa ngi sant leen gërëm ak kii nag moom ni may wax ak moom man man nekkuma sa morom dégg nga man du ma sa morom man bëri na man bëri naa ay mabat bëri naa bi mabat fii sama morom yëpp dama leen a lem yow danoo bëri yow danoo bëri mbapat ma daan la taxawalee. yow danoo bëri mbapat ma daan la. Dakar laa jóge Dakar laa jóge moo tax ma ñëw. yow doo doo ma ne kekk laa foofu Dakar laa entraînement ma ne kekk. dama soob ñëw ci lool. doo soob booy. te eh, yooyu yéen ñaar ku mag. yéen ñaar ku mag. yéen ñaar ku mag. yéen ñaar ku mag yéen ñaar ku mag. yu alal bi ree. yéen ñaar ku mag ku mag ku mag. maa ko mag ba mag ay mag. yaa ko mag. maa mag ba mag ay mag. ndeysaan loolu dana ma la mag de. mu ñëw tam mu tënku grand mbay magam bu mu ñëw mu dema du ma morom melin, dema nag léegi nag melin, leen dama bëgg nga yóbbul ma leen dama bëgg nga yóbbul ma ma gi papi ba pare yóbbul ma kii ba pare da ngay bàkku waaw da ngay aman, da ngay wone li nga man yóbbu ko yóbbu ko dama taxaw feeñ yóbbu ko yow léegi nag def na ndaanaan bi nag. Ousseynou Diagne lu bees. yaakaar naa ne lekkee laax. léegi nag caati ngelaw lay yóbbu la Ousseynou nooy lekkee laax. eh xaaral lu ko eh. rafet rafet rafet masa masa masa masa. loolu tëgg mbooloo bi balla tëgg mbooloo daa mbooloo bees. waaw yóbbul ma caati ngelaw gi. présenté leen ñaari mbër yi samedi ak dimanche la benn bis doxul ci diggante bi kii ngumba la dëkk yow it am nga combat ñaari xale lañ yoo xam ne yaakaar naa ne boo leen xoolee rek xam ne combat bi gën a neex ci làmb ji combat bi ci lay bokk Brescia yow nga jóge Kébémer war a fekk si Bébé Malo fii ci Ngumba ngeen war a daje Brescia boo daje Bébé Malo nan ngay def bisimilahi rahmaani rahim di mosoo si seytaane di la wax kii amul lu ma koy wax parce que revanche lay jël lawbe la du ma daan lawbe du ma daan pour neex kii barki Serigne Saliou da ngay sóob loo def daanu billahi loo def daanu yow maalo mën maa la ëpp xoolal bu baax léegi nag dama bëgg ngeen janoog population bi wax ak ñoom ndax yéen yow da ngay yaakaaru Kébémer kii di yaakaaru géewul ñu war a daje fii waaw du ci dara ñaari xale lañ yoo xam ne yaakaar naa ne doo oh, noo koy def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 nee na moo la man moo la ëpp loo wax ci loolu. Brescia. kii bala ma koo ton damay nuyu ñi ma àndal ba pare. waaw di nuyu waa Kemer. ak Aliya Arend Ongolo ba xaar yàlla. di ko wax ni kii. li muy bañ a dégg Brescia bi lay bañ a dégg par la force da koy dégg. billaay wallaay. dama lay wax ni la kii. pour mu daan ma il faut muy teel a yeewu teel a yeewu pour mu daan ma barki Seydina Mohamed. yow bu may teel a yeewu xajul si yow su ma teel a yeewu da ngay am problème. yow bu ma teelee yow da ngay am problème barki Serigne Saliou. yow li la may teguma la ko damaa daan sa jarbaat Kébé maire. moo am problème yow ma teelee yow da ngay am problème. man lawbe du ma daan. sa waa écrit ñëpp mën naa leen a jàngal bëre. barki Seydina Muhammad bu arbitre sifflé ma jël la. billaahi wallaahi.